jili mbay waxaw li la xawul wal ashjaar kal ashjaaril firdawsi yaani fil jannatil firdawsi manzilana nahnul nahnu saadiqin li ma bëgg a wax moo di bi nu ñëwee dinañ ko taq siir sax fan yi nu fi bëggoon a am mën naa am dañu koy xaaj ci digg bi ndax itam kenn du la may lépp nga jël lépp loolu moo tax li nu bëgg a leeral rek nu nekk gi nuy nekk fii ci bisu màggal gi di bàyyi ñoom borom baax fale kër Seydina Ousmane ca Touba loolu danu cee dëppoo ak xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mountakha waaw bu doon lu ñuy joxe ndigal dama naan ndigal lam ci am ndem communication dafa xew damay bàññi rek ñenn ñi nga xamante ni bi xel ci xel lañuy dox naam dox ci xel baax na lool waaye ci kaw nag mu lay xelal lu rafet sànq taalif bi ma doon bind ci Touba garab la goo xamante ni bi ca àjjana àjjana li muy yaatu yaatu barab bu fa mën a nekk palais bu fa mën a nekk am na benn branche bu la tiim maanaam Touba dafa doon garab goo xam ni ci àjjana li àjjana yaatu yaatu fenn fu fa nekk am na benn caru garab ba bu la tiim ak i meññatam kon mën na noo wax ni teeku tedd ki dafa waxoon ni dëkkam bee di Touba na ko def ni turandoom kon léegi xanaa noo ko gisul waaye fii am na bu fi tiim invisiblement bu fekkee gëm nga bee rek da ngay gëm bii ndax bee gisuñu ko ku tedd kenn ko wax nu gëm ko kon bii itam dañ koy gëm buñ ko gisul maanaam kon Touba ci boppam ak leeram banqaas yi ay leer ay anwaar nga koy firee dégg picc yi ak li ku tedd ki wax ca taxmiis astaxfirullah ma laxa sabahu wa ma taxannati tayru fil axsaani bi naxam seen mélodie yi ñuy def au matin